xam naa ko. ah am leneen lu ma xam loo xam ne ne waxam jotagul. baax na man tant que weeruñ suuf bi duggal ma ci biir am na lu ma xam. waa léegi dafa am 19 candidats yuy compétir mu am ñu jàpp ne da ngeen ragal loolu sax bokk na ci ngeen di yàkkamti na si bi que da ngeen di perte élection bi. perte élection mooy mu am ñoo xam ne ñu ngi ci. Euh, am ñu ngi ci joŋante bi ah. am na ay candidats yoo xam ne xaw nañ leen tiital de. mooy kan. mais tout le monde pense que bokk na ci report bi et que Bassirou non seulement vous kontaanu leen ci bokk baseeru mais que Bassirou Diomaye allait gagner l'élection au premier tour. loolu xam nga. xam nga xam nga xam nga. au premier tour. météo météo laa la wax. waaw. Ah. xëy na naa li suboo day am cinq degré wala dix degré yàlla suñu borom ñëw wone boppam joxe vingt degré. kii def sondage ñëw ne leen diw dina am temps ci wàllu élection en en vingt quatre heures quarante huit de mbir yëpp changé mbirum palu nit njiitu réew suñ borom moo ko yor xam nga lan nga mën sabablu xeex ba dugg baat vocal mais kii falu déjà xam nga man xawma ko yow xamoo ko da nga yaakaar rek wala. ñi nga xam ne ñoom wala wala mais loolu. mbiru suñu borom la. mën na doon Bassirou de. pourquoi pas il est xam naa ne man loolu loolu du sama bëgg-bëgg man loolu bokkul ci li mu bëgg man te dama koy assumer. mais jàpp nga ne Bassirou mënu leen dóor. non non non non xalaatuma loolu xam nga lu tax Bassirou mënuñoo dóor. Hmm. dinaa la jox tuuti résultat ci wàllu candidat yi. ah bon. Euh, lu tax Bassirou mënu leen dóor non c'est euh, mu am Pastef mu yor coalition. triple triple est ce que est ce que tout passé fait derrière Bassirou. XL non. tout passé fait derrière Bassirou loolu beneen débat dama lay laaj rek. non xaw ma mais loolu. mais voilà yaakaar naa képp kuy koo xam ne ne kii vous êtes pro Ousmane Sonko dugal ci wàllu politique xam nga wax ma pour jaxase. tu n'as même pas un pour cent d'intérêt que Bassirou Fallou kon Sonko koy intérêt y a des gens nag ñoo xam ne ne dama leen di gis qu'ils étaient avec nous. aujourd'hui naan ñun dem nañ ci Bassirou te dañ demoon nekk ay candidats ñi nekk ay candidats amuñu tous mënuñu sax satisfaire problème de parrainage ba ñu nekk ay candidats tey seen kàddu yëpp ñu ngi ci ginnaaw Bassirou. kan Aminata ci la bokk. bu ko neexee. ay ñoom marito ñaan ñun ñëpp ci lañ bokk. mais yéen Aminata Touré yéen a ko dax yéen yéen yéen a ko defloo campagne. mu def campagne. Eh, eh. am 83 députés. war a nekk président assemblée nationale. trois élections trois élections la ñu dem nag. fu ko neex dem nañ élection 2012 kan moo jiite woon suñu tête de liste. 2012 de xamatuma kan la. ah. 2012. 2000 2000. 2017 Mohamed Boun Abdallah Dionne. mais est-ce que. majorité bi ñu am bokk na ak majorité bi ñu am ak ak bi ñu. am d'accord mais il était premier ministre njiitum njiitum Aminata moom bu ko wax. Ah, loolu moom bàyyi rek bàyyi euh, te moom tamit. Euh, euh, noonu laa décidé ne dootuma ko sànni kàddu yi ma daan ah, wax am lu ma non ah, loolu ci wàllu kii bi rek mais dootuma ko wax dara ah.